asalaamaaleykum euh, mbokku sénégalais yi suñu xarit yi yéen ñi ñu suivre ci live bi xam nañ ni guddi na fekk coono am na war ngeen noppalu waaye dañoo gis euh, benn note buy circuler ñu tudd ci suñu tur cité ñu nommément moo waral ñu ne xaaral ñu def waxtaan bu gàtt bii rek pour que mu bañ a am amalgame wala que réeroo bañ am parce que bëgg nañu lépp lu ñuy sekk ci yéen rek mu nekk loo xamante ne ci lu leer nañ koy teg li am nag lenn kese la euh, man Pape Abdoulaye Touré laa tudd ma bokkoon ci détenu politique yi ñu jàppoon euh, événement juin yi passé donc euh, bi loolu amee après presque neuf mois ñu libéré ma ci kaso bi le quinze février passé la ñu ma bàyyi. toppee wuñu ma dara dew ma audition dew ma enquête dew ma fenn dañoo jékki saay rek bàyyi ma comme sax ma génn ma génn nag génnaa rek ay séquelles ndaxte j'ai été victime d'une torture sénégalais yëpp gis ko ñu ci bëri ci yéen ñaawlu ko ma leen ciy sant nag di leen ci gërëm ci taxawaay boobu ngeen amul par rapport ak situation boobu ndaxte Sénégal ku ko xam xam ne Sénégal sénégalais buggul injustice te loolu wane ngeen ko taxawee ngeen ko xeex ngeen ko ak anam bu mu mënti demee donc ñu ngi leen ci sant bu baax a baax di leen ci gërëm sans pour dugg nag ci détails yi wala di di di guddal waxtaan dañoo bëggoon rek juste tontu parce que moom bu muy bind communiqué muy Fatima Mbengue di ci di wax woowuñu yëgaluñu moo tax tamit ñun tamit ñu xëy na du sax question de polémique mais compréhension yi mën na wute ba ñu fogee ko leneen te du leneen mbir mi nii la demee depuis bu ma génnee kaso ak léegi damaa nekk di dund ay jafe-jafe yoo xamante ni xëy na nekkul sax lépp laa leen wax ndaxte am na yenn yoo xamante ni secret ak secret médical permettre ma pour may génn di wax lan laa nekk di dund au fond de waaye li ci gën a fës ci li may dund maa ngi ko doon dund ak dignité te ba léegi maa ngi koy dund dignité li ma ci am maa ngi ko ciy def dama gis nag communiqué ñu ne détenu politique yépp dañu leen jël en charge à cent pour cent lépp lu jëm ci seen wàllum euh, santé ba tudd ci sama tur ne man ci laa bokk loolu laa ñëw nag pour démentir ko parce que loolu amut moom mii di Fatima Mbengue nga xamante ni suñu sœur la ñu respecté ko loolu tamit du polémique du dara mais comme de dafa génnee communiqué te suñu tur ñun tamit yoon la ñu ñëw leeral lu bëree bëri pour mu leer ci bopp ñëpp bi may nekk kaso ba bi may génn waxuma la appel wala visite mais SMS fàtte Fatima mi ngi sax musul nekk ci sama téléphone ne serait-ce que pour ne ma Touré ndax yaa ngi ci jàmm loolu mosul am su amee na na génn mu wax ko. gis naa aussi ci biir communiqué bi mu ne bi ma génnee de mettre na ma en rapport. ak docteur Mansour Diop ma bëggoon juste wax euh, def benn petite pause benn petite parenthèse pour sant bu baax gërëm bu baax docteur Mansour Diop bi nga xamante ni moo nekk fële ci clinique Khadija bu Zagmaaw bi may dem ci docteur Mansour Diop man de am naa yaqin ne Fatima yëgu ko te bu may dem foofu demuma fa ci titre détenu politique wala dañu ma faa orienté en tant que détenu politique déedéet Yolande kamara bi nga xamante ne moo nekkoon moo nekk coordinateur moo nekkoon coordinatrice su mouvement Sénégal notre priorité te ñëpp gis taxawaay bu mu am ñu ma jàppee bi ma génnee ay médecins ak ay docteurs yu bëri sollicité ma ne ma Touré waaw su fekkee bëgg nga def ECG euh, e mën nga ñëw ñu defal la ko wala xaw ma du genre bëgguma dugg dans les détails Yolande moo jàpp sama loxo ne ma am naa sama benn xarit patriote bu mag la docteur la Mansour Diop la tudd. dafa yor clinique boppam fële ci Zagmaaw nañu dem donc ci titre boobu laa demee waaye demeewuma ci titre détenu politique ma bëggoon rek loolu mu leer sama diggante ak Fatima parce que ba léegi ba fa wax yow ni Fatima yëkkatiwul téléphone am woo ma déggante ñu ma bàyyee ba léegi woowu ma benn yoon sax ne ma Touré noo def naka paas bi am jàppal fukki dërëm yokk ko ci paas bi ak ñoom seen loolu yëpp dara amu ci mais amul problème. man nag awma benn reproche bu may def benn partie politique parce que man damaa libre bokkuma ci benn partie politique te bu ma doon xeex yi xeexuma pour benn partie politique dañuy xeex pour Sénégal moo tax parti politique buy xeex pour Sénégal ñun tamit dañuy ànd ak yow ci xeex boobu pour Sénégal donc lii nekkoon lu ñu bëggoon a leeral pour mu leer ci bopp ñëpp prise en charge boobu ñuy wax à cent pour cent xëy xëy na su fekkee dañ koo jël tay yëgaluñ ma ko su fekkee dañ koo jël tay yëgaluñ ma ko ba fi may waxee yow nii bi ma defee sama malaise bi lendemain Korité le euh, le lendemain xaw ma le surlendemain ci la ma docteur Mansour Diop bi nga xamante ni bu may soog a génn kaso ci moom laa demoon mu am yenn traitement yu ma defal mu woo ma ma dem fa mu defalaatal ma ECG. orienté ma ci beneen clinique pour ma def scanner parce que scanner amul ci docteur ci clinique gu euh, euh, Khadija ma dem def scanner cérébral scanner cérébral bi génnee résultat résultat yi am lu ma wone malaise boobu ma def ba dem hôpital principal ba li ma fa dal dal ma fa ba situation boobu ma expliqué doon ko dénoncé pour attirer attention wu autorités yi à ce que ñu faciliter l'accès à la santé sénégalais lambda bi ndax principal te ay mbiram cher na lool cher na lool loolu moo nekkoon objectif publication boobu waaye malaise boobu bu ma ko defee boobu ba léegi jotuma appelu kenn ku bokk ci parti woo ma ne ma Pape Abdoulaye Touré massa ci malaise bi nga def waxuma ñu jël en charge de wala ñu kii ma de mais ñu ne ma massa amut donc taxaw nag mais euh, parce que nu mu communiquer ku ko déggee mën nga foog ni dafa am leneen lu ñuy wut lu dul faju déedéet yàgg nañoo am ay jafe-jafe te kenn mosu koo dégg bi ma génnee ba def sama conférence de presse waxtaan ak sénégalais yi ci niñ ma doon torturé wallahi azim bëri na ci yéen ñi ñuy suivre ñu ñu topp doon ñu woo ubbil cagnotte ubbil cagnotte ma ne leen duma ubbi cagnotte dama catégorie goon ci loolu saraxoon nañ ma ku nekk sama ay ñii ay xarit lañu ñii sax xaw ma leen ubbil kaset ma ne ne déedéet bàyyi leen may taaba taaba rek bàyyi leen may góorgóorlu rek su ma amee dem faju su ma waree defi kinési ma dem euh, defi kinési di jóge nag Tiwaawoon Pël doon dem ba hôpital principal kenn mësumaa jox njëgu njëgu taxi wala njëgu njëgu njëgu njëgu njëgu kalandoo Touré sooy dem yoon bi paas bi metti na jàppale ci li musul am loolu musul am lu dul Amnesty International bi nga xamante ni bi ma waree dem defi sama yenn analyse yi clinique Madeleine bi nekk centre ville ñoom taxaw nañ ci jàpp na jàpp nañ ci ak ñenn bonne volonté yi nga xamante ni xëy na ils sont sensibles par rapport ak suñu situation ñoom tamit ñu dugal ci seen loxo mais quant à dire que parti bi daf ma jël en charge loolu c'est faux c'est archi faux amul tey amul suba loolu lañu buggoon leeral te loolu nag merewuñ ci parti bi déedéet merewuñ ci parti bi de parce que parti bi amul benn responsabilité envers man ndax ab simple sympathisant dong laa te bu ñuy jug di xeex ba lu ñu ci dal yépp dal ñu ci ñu dàq ñu ci université ja yàgg ñoo jàpp ba torture yi nga xamante ne moo mujj defuñu ko woon pour parti defuñu ko woon pour suñ ci ndog ndog dalee parti jël ñu en charge déedéet dañu ko def ndax dañoo bëgg bokk ci ndaw yi nga xamante ni dañuy bind taarixu Sénégal bu bees mooy profité di leen félicité ñu yéen jeunes yëpp yi nga xamante ne participé nañ tey ci lii nga xamante ne moo am ci réew mi di ñaan yàlla yàlla bu yaakaar tas di wax ni amuñu problème ak jafe-jafe ak kenn sauf que nag fan yii ak malaise bii ma def daf ma tiital lool ci sama santé parce que man ñi ma xam dëgg mësumaa def cinq comme ci sama àdduna kon su ma demee bu bu mu commencé maa dal et que situation bi nu ma leen ko décrire noonu la demee tëdd naa nelaw yeewu naa vers dix heures onze heures dugg ci toilette bi doon tuur ndox di génn ci laa gëj a xam li xew et d'après sama sœur bi jàkkaarloo woon ak man fekkee mbir mi nee na damaa bàyyeeku par derrière sama bopp dal ci mur bi même su fekkee tojul bay nàcc waaye période boobu bopp bu metti sonaloon na ma lool ci lañ ma jagat jagatee dugal ci oto yóbbu hôpital principal loolu mosumaa dal su ma dalee am naa sañ-sañu tiit xam ni lii su def su ma dalee rek yaakaar naa ni torture yu ñu ma torture nga xamante ni sénégalais ay image dong la ñu gis te fan yi di ñëw dinañ wane vidéo yi dinañ xam ne loolu mënul bañ a bàyyi ay séquelles ñu doon nag taaba taaba boobu ba léegi sama yaay ma jàppale léeg-léeg ci yenn transport yi ak yenn médicaments yi ak ñoomi seen waaye bu ñu demee ba suñu santé tiital ñu ah ci lañu ne jóg nag jot na pour def focus ci suñu santé ba fi may waxi gii nii trente minutes mënutuma dox un kilomètre ndax ay douleur lombaire ci ki nga xamante ne bi muy nekk université Cheikh Anta jot de Dakar à la faculté de droit da doon def ay cent pas de de zéro heure à trois heures du matin di réviser loolu man gëm naa ni jamono jii ñu toll mënatuma ko parce que sama santé maytuma ko ak yeneen i jàngoro yoo xamante ne mi ngi ci ñun te mënuñu ko wax parce que war am nañu rendez-vous hôpital Dalal Jàmm service chirurgical bi nekk foofu am nañ fa rendez-vous lundi bii bu ci topp dem nañu fii nga xamante ne mooy principal également ñoo am ay rendez bañ defal ñu sax performant te loolu parti bi jëlu ko en charge kenn jëlu ko en charge te amnistie nag nekk lu fi Pape Abdoulaye Touré kese amnistie ñëpp la fi nekkal te mbirum sante dafa nekk loo xamante ne dama cee dama dama cee commencé yeewu di ci jël di ko jël au sérieux ndaxte li ñu ma def xëy na su fekkee ni sama bopp day metti rek ma ne sama bopp day metti ñu jox ma paracétamol mën na koo calmer pour un temps waaye man lu may gën a xalaat ci sama bopp mooy fii ñaar fukki at fii ak may dugg ci samay cinquante ans fii ak may dugg ci lu lii may wax médecin moo ma ko wax Touré jugal ci sa bopp parce que mën nga sax def comme si que wér nga te wéroo mën nga dugg ci say cinquante ans soixante ans mu dikkal na loo xamante ni maara day taal man ci loolu laa gën a focus prise en charge yi maanaam nga damm ñu nga dem ñu tabax la mu wér baax na lool nga am ordonnance boo xamante ne pour bopp buy métti la war a pour hémorroïde wala crise d'hémorroïde sévère wala scanner boo war a def baax na lool waaye def bilan général taxaw saytu sa wér ki yaram ñu xam lan moo nekk ci yow lépp ba anticiper loo xamante ne sax feeñagul man ci dynamique boobu laa toll waaye bu ma ci toll it may préciser que ni cagnotte bii wallahi du sama initiative ndaxte bi ma defee sama conférence de presse ñu bëri waxoon nañ ma ubbil cagnotte ma bañ parce que gëmuma loolu man damaa bokk ci ñu jàpp ni lu ñu dal ci combat bi rek Sénégal jar na ko waaye sama ay xarit yi ma bokkal depuis 2018 première année à la faculté de droit partagé ak ñoom chambre au niveau du campus social ma génn ñenn ci ñoom taxawuma doon ma dimbali ba mënatuñ maa dimbali ñu ne lii jëmul kër ginnaaw malaise bi ñu ne lii jëmul kër xam nañ ni bëggoo ñu defal la cagnotte mais ñun ñooy jël suñu ay responsabilité wu bopp ubbil la cagnotte par A ou par B. parce que yow tamit waroo égoïste permettre sénégalais yi nga xamante ne xëy na seen jot seen temps permettre leen woon pour ñu wàcc ci terrain bi xeex comme ñun ñu ko doon defee bàyyi leen ñoom tamit ñu ñu ñu ñu ñu ñu participer ci seen fukki dërëm seen ñaar dërëm lu mu gàtt gàtt dina la mën a fere transport rek doy na koo xamante ni Tivaouane Peulh lay jóge di dem ay kinési hôpital principal sooy jël taxi 7000 lu mu gàtt gàtt di nga ko fay imagine toi 7000 aller 7000 retour 14000 soo ko naree def ci semaine bi ñaari yoon wala ñetti yoon fi may wax ak nii war naa def ay aqua gym aqua thérapie parti bi jëlu ko en charge man de dama yaakaaroon ni awma nag leneen lu may reproché parti bi te parti Pastef projet bu mu teg. tey lañ ko gën a épouser maa ngi rappeler sax que ni le président Ousmane Sonko jour élection yi le soir yàlla dafa dogal ma gisanteeg moom ci këram parce que fa lañ ndogoo ku ko bëgg ko sopp la ko bëgg ku ko sopp la donc bëgguma tamit ñuy ñu may ñuy génn yenn affaire yoo xamante ni ça peut nous mettre mal à comme quoi que non parti bi nii parti bi naa non non sama ay xarit ñoo jël initiative bi ne ñuy def cagnotte bi y a rien de mal lan moo ci nekk su fekkee am na ay sénégalais yoo xamante ni xëy na luñ ñu def ak lu ñu subir metti na leen mais amuñu pour seen xol xaw a sedd sax foog ñu yëkkati seen fukki dërëm dugal ko ci ñooñu bu ñu leen xañ loolu parce que suñu leen xañee loolu damay égoïste te buñ ma waxee loolu ma dégg ko ci laa xam loolu ci laa xam ni ñoom tamit wax nañu dëgg waaye loolu rek lañ ci jublu. mais jubluwuñ ci leneen parce que communiqué bi ku ko liir soo deful attention mën nga foog ni sax ñun dañuy utiliser suñu feebar bu ñu feebar pour di ci wut alal wala di ci wut xaalis wallahi azim samay camarades étudiants ñi ngi may dégg sama ay xarit ñi ngi may dégg alal suñu taxoon a jóg duñu dépassé nañ fii ñu nekk du ñu nekk Sénégal tey ndax lu nekk proposé nañ ñu ko proposé nañ ñu bourse étrangère jamono ju muy metti ñu dàq ñu université ñuy wër ban université lañ war lan lañ war a def parti bi woowu ma ne ma Pape Abdoulaye dégg nañ ne dañ dàq kaay ñu jël en loolu amut te du ma leen ci mere parce que du ma militant wu parti bi te su may xeex xeexlu ma parti bi Sénégal lay xeexal même nu mu nem si yàlla Ibrahima Fall je jema si je rappelle bien moom moo woon jamono duñ ma dàqee université massawuma Ibrahima Fall Eh, te mu nekkoon photographe pros yàlla na ko yàlla yërëm ak ñi faatu ñëpp yàlla na leen yàlla yërëm donc juste pour wax ni rek du alal du fonds de commerce lañ ci bëgg du dara lañ ci bëgg mais dañoo bëgg wax fu dëgg yàlla nag ay na yéwén ay ndaw la ñu xëy na sax moo tax ñu mën a tenir jeunesse bi moo tax ñu mën a tenir waaye ñun dañuy xalaat fii trent 30 ans fii ak ans ci kanam loolu daf ñoo tiital ëlëm suñu bopp te loolu képp ku pare pour jàppale ñun si ñun duñ ko bañ. du ñu ko bañ donc sénégalais yi nga xamante ne ñu ngi jël seen fukki dërëm ak seen ñaar dërëm di ko ci dugal ñu ngi leen ci sant di leen gërëm yéen ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di wax ni ci doon alal dong wala dañoo bëgg am xaalis kese ci nguuru Macky Sall la ñuy teddee waxuma la nguuru jom euh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye donc du loolu de détrompez-vous c'est juste que dañoo dem avec les moyens du bord ak soutien yi te gor tamit moomul chaque jour ngay dem ci même personne di ko laaj même di ko laaj saay soo amee ordonnance nga dem ci moom. Amnesty International nekk lu moo fi man kese maa ngi leen di sant au passage di leen gërëm clinique Khadija docteur Mansour damay toog sax am kersa dem ci clinique am parce que su ma fa demee du ma fayeeku dara damay am kersa boobu sax moom tamit ma koy sant bu baax di ko gërëm am naa kersa nit yónnee ma. Euh, euh, cinq cent francs tey suba ma war a delluwaat euh, pour def pour dem jëli rendez-vous ma woowaat ko ne naan damaa war a defaat lii am naa kersa boobu am naa kersa boobu te lii lii ñu ma defal it am naa ci kersa waaye devant l'impossible possible n'est tenu maa di leen gërëm di jéggalu nag bu baax di jéggalu ñëpp di jéggalu bu baax a baax di remercier ñi ci taxaw di ci jàpp boobu ba léegi sama xarit yi nag ci ñu lancé cagnotte bi waaye suñ ma déggloon donc duñ ko sax lancé bu muy indi polémique bi ba ku ko dégg foog ni daa am leneen lu mu ciy wut ak ñoomi seen mais ñun lenn rek lañu bëgg lenn rek lañu bëgg wér-gi-yaram ba fii ak cinquante ans lu ñu do lu ñu daj le vendredi 2 juin mu bañ a am répercussion ci suñu santé parce que jamono jii ñuy wax ak yéen wallahi azim fu may wax ak yéen nii sama digg ngi metti ci taxaw bi ma taxaw diggante bii rek sama doo baa ngi metti wallahi azim maintenant nag am naa ay pomade yu ma jënd ak ñoomi seen mais loolu c'est juste pour calmer alors que j'ai pas besoin de calmant j'ai besoin d'être guéri j'ai besoin d'être soigné définitivement ba dans le futur mu bañ a am ay répercussions lii moo nekkoon yéene bi waaye su si leneen wala bi amee ñu ngi ciy tub bu baax di jégalu di wax ni rek parti bi jëluñu en charge à cent pour cent comme ni ko Fatima waxee parce que moom sax dégguma ko ba léegi maa ngi koy nuyu su fekkee mi ngi seetaan live bi jërë ngeen jëf maa ngi jégalu bu baax ci guddi bi merci beaucoup